kon sëriñ bi nee na mi ngi santaat sëriñ Amdi bu baax. di leen ko yóbbante. sëriñ Assane. yaak sëñ Daam. ak maam seex ak bokki taalibe yëpp. nee na bàyyiwut kenn ci fi ñi fi teew. sëriñ bi nee na mi ngi leen di yobbante ak cantam ak ngërëmam. te xam ne kat noppaluwu leen benn yoon. yéen ngi ci liggéey bii. yéen a nga ca daara ja. yéen a ngi waajal koor gi. kon yéen wàccu leen benn yoon. liggéey bi nag tax ñu daje fi tey. liggéey bii tax ñu daje fi tey. sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa wax ne. sëriñ daa wax ne. sunu borom dafa waxoon ci alxuraan ne. daa waxoon ci alxuraan ne. amana rasulu. amana rasulu. bima unzila ilayhi min rabbihi. bima unzila ilayhi min wal muminuuna. wal amana billahi. wa malaikatihi. wa malaikatihi. wa kutubihi. wa rusulihi. mooy yonent bi ci boppam. mooy yonent yi ci boppam. yonent bi ci boppam. day gëm boppam. day gëm boppam. doog a jariñu ci boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. sëriñ sëriñ Sonia bu daan wax ne. bu daan wax ne. boo gisee sëriñ Touba. boo gisee sëriñ Touba. daan jàpp ba noppi. daan jàpp ba noppi. di ci barkeelu. di barkeelu ca njàpp ma. nee na mooy njabootu sëriñ Touba mooy njabootu sëriñ Touba gi. kenn ku ne. kenn ku ne. yaa ngi sàkku sëñ tubaa ci sa morom. yaa ngi sàkku sëñ tubaa ci sa morom. loolu la tax sëñ tubaa daan ko def. loolee la tax sëñ tubaa daan ko def. da koo firi woon bis. da koo firi woon bis. waxoon ne. daa waxoon ne. li gis ci li jëm ci ji. ñëpp gis ci sama jëmm ji ba daw jëm si ci. loolu la la jëmm gis ci boppam. nee na loolee nag la jëmm ji gis ci boppam. te bëggut ku ko ci ëppale. te bëggut ku ko ci ëppale. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. liggéey bii mu santoon. liggéey bii mu santoon Baye Fall yi moo tax moom itam. moo tax moom itam. joxe addiya ñëpp la war. joxe addiya ñëpp la war. moo tax oto yii mu jël ko. moo tax mu jënd oto yii. muy ñeenti oto. muy ñeenti oto. def ko addiya sëñ Touba. def ko addiya sëñ Touba. tabbee ko ci biir liggéey bi. ko ci biir liggéey bi Cheikh Rafal bi. nee na ji ngeen ci am. nee na tuyaaba ji ngeen am ci liggéey bi. la ci bëgg am moom nee na moom it loolu léegi ci la bëgg. moo tax mu jënd ñeenti oto. noo tax mu jënd ñeenti oto. jox leen ko jox leen ko. def ko def ko ci biir def ko nag addiyaam ci biir liggéey bi Cheikh Rafal yi. ndax nee na war may dëkk bi. ndax nee na war may dëkk bi. da koo ñor lool. da koo ñor lool. ndax sëñ tubaa da ko ñaan. ndax sëñ Touba da koo ñaan. ci matlabul fawsayni. ci matlabul fawsayni. wàccal xarimana. wàccal xarimana. xariman amina. xariman amina. wa kun bi xifsihi. wa kun bi xifsihi. kafidan damina. kafidan damina. nee na kon wóor na ko nee na kon wóor na ko ne. dara dara mënu fi am lu jàmm. moom mënut am ci dëkk bi lu weesu jàmm. li fi sëñ Touba bëgg itam. li fi sëñ Touba bëgg it. suñu borom defal na ko. na ko ko ba nag. ndax dadi ne. dadi ne. nit nekk ci biiram du ko yëg. bu nekkee ci biir mbir mën na koo bañ a yëg. waaye Touba de li am. waaye Touba de li fi am. ci jàmm ci jàmm. amul ku ko génn xam ne amul fenn ci àdduna. loolee nag. sëriñ bi dénk leen ko. sëriñ bi dénk ko Baye Fall yi. ngeen di ko ko saytul. nam ko bëggee. kon nag na ngeen eh, sant bu baax a baax. kon na ngeen sant nag bu baax. te xam ne la alxuraan waxoon ne. te xam ne la alxuraan waxoon ne. laa yastawil xaaxidoona. minal muminina minal muminina xayra uli darari xayra uli darari wal mujahidona wal mujahidona fi sabilillahi fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim bi amwali wa anfusihim fadlallahi mujahidina fadlallahi mujahidina bi amwali wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim alal xaahidina alal xaahidina darajatan darajatan wa kullan waxda allaahi usna kon yéen ñi futti ko kon yéen ñi nga xam ne yéen a futteeku jaayante jaayante seen guddi ak seen bëccëg ak seen bëccëg jox ko sëñ Tuubaa jox ko sëñ Tuubaa mënu leen mukk ña toog mënu leen a yem nag ak ña toog ca seeni i kër kon loolu taw feex rek la sëriñ baa ngi leen di sant te xam ne liggéey bii itam te xam ne liggéey bi itam liggéey bu tàmbali la liggéey bu tàmbali la te xam ne nag du dakk ba addunay tukki ba ci suñuy sët. ba ci suñuy sët. nii la war a wéyee. nii rek la war a wéyee. liggéey ndax liggéey bu diis la. moo tax na kon. moo tax nag kon. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. na ci ñëpp ànd ak ñoom. na ci ñëpp ànd ak ñoom. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. sàmmale leen ko. sàmmale leen ko. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. defar sa jëmmu defar sa jëmm. ba ba kenn bañ laa jubbanti. ba kenn bañ laa jubbanti. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. defaru nañ ba noppi. defaru nañ ba noppi. ku am kattanu xalaat. ku am kattanu xalaat. nga jàppale leen ci. nga jàppale leen ci. ku am kattanug jëf. ku am kattanug jëf. sa alal ci sa alal. nga dimbale leen ci. nga dimbale joxe sa alal. ndax joxe sa alal. dara ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. dara ci yoon wi. te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa na ko. te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa Diène na ko. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. mu ne ko boo ko amee da bëriwut. mu ne ko su ma ko amee da bëriwut. mu ne ko boo ko amee sa wàcc ko. ko boo ko amee wàcc ko. ndax taalibe murit. murit. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. nangu ko liggéeyal. nangu ko liggéeyal. ab sëriñam mënu koo jariñ. ab mënu koo jariñ. kon loolu képp mooy li ci am solo. kon sëriñ bi nee mi ngi digal taalibe yëpp. kon sëriñ bi nee na mi ngi digal taalibe yëpp. ko am kattanu mën a jox oto. ko am kattanu mën a jox Baay Faal yi ab oto. na ci joxe ndax du doy. ndax na ci joxe ndax du doy. ndax liggéey bi daa rëy. ndax liggéey bi daa rëy. ku amul kattan mën a joxe oto. ku amul kattan mën a joxe oto nag. mën a joxe addiya. te mën a joxe addiya. ju sax ju sax. di ko ci def ko ci def. na ko na ak ñoom. na ko ànd ak ñoom. ndax liggéey bi moom. ndax liggéey bi moom. xam ngeen ne doole xam ngeen ne doole moo koy def. waaye kattan koy def. waaye kattan na koy def. ndax mbooloo mi mën nañu ñetti mi kat mat na ñetti téeméer ak fukk ak ñett. kon loolu lim bu diis la. kon te loolu limu baatin la ci yoon wi. te loolu limu baatin la ci yoon wi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne ba muy dem ca géej gi. ba muy dem ca géej gi. waa ahlu badri yam àndaloon. mooy lim boobu. ndax seex Abdoul Ahad waxoon na ne. képp ku fi nekkal sëñ Touba. képp ku fi nekkal sëñ Touba. ña àndoon ak sëriñ bi. ña àndoon sëriñ bi. foo nekk ñoo lay sàmm. foo nekk ñoo lay sàmm. képp ku bëgg a ci yow lu dul noona. képp ku bëgg a jëmee ci yow lu dul noona. ñooy dox sa diggante ñooña ñooy dox sa diggante ak loolee. kon nag kon nag. ñu ngi koy ñu ngi ñëpp. ñu ngi ciy soññi ñëpp. taalibe yëpp. sëñ Abdoul Kam itam. bi ma ko ko yëgalee. bi ma ko ko yëgalee. jox ko ci ndigal. jox ko ci ndigal. na ko yow kat yaa jiite maire bi. yaa ci war a jiitu kon. yaa ci war a jiitu kon. sa wa sa jëf moo ci war a njëkk a tàbbi. yëpp ànd koog yow. taalibe yëpp ànd koog la ko. wax ne ko. kon moom it commune bi sosoo ci. kon moom it commune bi sosoo na ci. weer wu nekk. weer wu nekk. junniy litre. junniy litre yi gasoil. bu ko defee muy dem ci oto dem ci oto yi. kon nag loolu. noonu mu ko defe noonu mu ko defee. ni la ko ñëpp war a defee. ànd koog ñoom. kon ñi ngi sant bu baax. di bañ a guddal kàddu yi. di ñaan rek. yal na ko Serigne eh, Touba tàbbal. yal na ko Serigne Touba nag tàbbal. ca liggéey ba Cheikh Ibra liggéeyaloon Serigne Touba. ca liggéey ba Cheikh Ibra Fall liggéeyaloon Serigne Touba. ba Serigne Touba nangul ko ko. ba Serigne Touba nangul ko ko. ba lépp demee nii mu lépp demee nii mu demee. liggéey bi yal na tàbbi ci liggéey boobee. lam ca làqoon ci ngërëm it. lam ca làqoon ci ay ngërëm it. ngërëm yi yàlla tabbi ci ngërëm yii yàlla tabbi ci ngërëm yooye mu toll li alxuraan di rek mu tolloog li alxuraan di wax ne. ña leen jiitu. jiitu. ci ngëm. ci ngëm. bu ngeen mënta àgg fa ngeen àgg itam. ba ngeen mënta àgg fa ñu àgg itam. bu ngeen góorgóorloo rek. seen pëste fa àggale leen foofu. yéen nag yéen nag. am ngeen tawfeex. ngeen tawfeex. ndax li leen seen maam fàggul. ndax li seen maam fàggul. yéen yéen Baye Fall yi. mooy lu mujj a judd rek. mooy lu mujj a judd rek. ëpp pësteef ëpp pësteef. loolu pàgguteef loolu moom pàgguteef la. ndax àdduna soppiku na. ndax àdduna soppiku na. jamono ji na lool. jamono ji yàqu na lool. waaye yéen ku dugg seen biir kër yi. waaye yéen ku dugg ci seen biir kër yi. xam na la fa nekkoon démb xam na la fa nekkoon démb moo fa nekk ba tey. dara soppikuwul ci yéen dara soppikuwul ci yéen. mbuum mu baax sax soxlawu leen ko. mbuum mu baax sax soxlawu ko. waxuma ak tabax bu rafet. loolu moom taw feex la ak pàgguteef. waaye du lu doomu aadama mën a defal boppam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah jël kii taxul jël leen image su caabi ji waaw <laughs> jaajëf sëñ Assane bisimilah jëlal te ngeen a jóg taxaw image bi mën a gën a leer waa jógal taxaw waaw kay newal ne xaaral mu jël ba noppi mun na nga yóbboo ci salle bi sëñ Cheikh. Ah, waaw mu ñëw nee na mu ñëw nii nee na mu ñëw nii ok. bisimilah nan waaw. Moussa bul tëggee de Moussa dogal ba ñaan bi daan